Euh, le Premier ministre Amadou Ba il est en train de <laughs> faire sa tournée économique librement sans être inquiété euh, yow lay tàmbalee <laughs> parce que Thiès la nekkoon. Mamadou kii dafa dafa xeer ba xolam mais di di ngeen am temps wu kii ji après ku kii rek. voilà on passe euh, à la tournée du du du Premier ministre il était à Thiès il est toujours à Thiès. Mm. Euh, lan lañ ci mën a retenir jamono ji. waaw li ñu ci mën a retenir rek mooy d'abord ñu rappeler ni la région de Thiès. avait bénéficié d'un programme triennal d'investissement euh, public de 1500 milliards lors du dernier conseil des ministres décentralisé bi nga xam ne le président de la république Macky Sall defoon na ko à mhm. mu am ay dige yoo xam ne defoon na ko am am ay engagement forts yoo xam ne jëloon na ko et pour cela pour moi rien n'est plus normal qu'un premier ministre chef d'un gouvernement descende sur le terrain pour évoluer et opérer des suivis dans ces programmes et politiques publiques yoo xam ne état jëloon na ko. parce que d'habitude comme ñoom nii ñu ko faral di mën a defe rek dañuy toog ci plateau ñu tàllal leen micro rek ñu wax lu leen neex sànni xeer ñaawal bu wax nu mu gën a ñaawee nu mu gën a mitee alors que li ñuy wax dara dara dara dara mënuñ cee teg seen baaraam parce que boo toogee ba heure bi nga bëgg a wax le président de la république avec les nombreux efforts kila a depuis qu'il est arrivé au jours. nga ne defoo fi dara loolu ti n'es pas objectif. xëy na waxee loolu dafa jàpp ne priorité yi. voilà xam nga priorité ki nekk ci tuuti mënu ko xam. vous pensez priorité moom la déedéet na koo xam il a son yi ki koy xam. mooy ki nga xam ne moo détenir tous les renseignements tous les renseignements yi nga xam ne non nécessaire ñoo ñooy yeewoo ci dëkk bi. mais nee nañu ce qu'on fait euh, pour mois sans moi est fait contre moi. mais on le fait pour lui on le fait pour lui. mais xam nga man Mamadou mënu ma mënuma toog rek jàpp ni man li ma métti wala li ma dal rek moo dal Sénégalais yëpp moo dal mm-hmm. jeunesse bi yëpp alors que am na ay ay ay ay ay ay ay autorité am na ay mécanismes yoo xam ne mën nañ ko teg pour évaluer mm-hmm. xam tey taux de chômage bi fan la toll fan la yem xam nga tout à l'heure bu jee taxawee bu taxawee bu jee taxawee fii léegi boo ko dégloo tànk à l'entame de ses propos mu ne le Moustapha mu ne ce qui est dommage mooy dañoo supprimer le ministère du plan mhm. ban ministère du plan lañ supprimer Sénégal le ministère du de l'économie du plan et de la coopération boobu lañ supprimer nga xam ne léegi monsieur Doudou moom moo ko yor non kañ lañ ko delloo si kañ nga ko supprimer xam nga xam nga déggoon naa ah. xam nga lii moom moo xam nga ñun position bi ñu nekk dafa métti dañ koy nangu. Mm-hmm. xam nga défendre moo gën a métti attaqué. <laughs> car que ñoom dañuy. attaqué si vous avez quelque chose à défendre. absolument nous avons nous avons un bilan satisfaisant à défendre parce que maa ngi lay wax léegi pour ci cadre tournée économique yi. Mm. wax la un programme milliards yoo xam ne deux mille programme triennal deux la jëm. et avant cela le président Macky avait injecté plus de milliards à Thiès depuis le conseil des ministres décentralisé de deux mille defoon le tronçon Thiès Mbour euh, Diamniadio mhm. tey Thiès est devenue euh, une région carrefour du point de vue aéroportière du point de vue ferroviaire du point de vue autoroutier mhm. yooyu yëpp Thiès am na Thiès tey loo xam ne tey ñun dañu doon dégg ci ay kay équilibre la Thiès est une ville carrefour mais mënoo woon a teg fenn sa baaraam mais léegi boo xoolee le programme du hub aérien bi nga xam ne le président de la République initié na ko les nombreux efforts qu'il a consentis pour mettre les pour repositionner au regard de ses multiples potentialités dans la marche dans la dynamique pour la marche vers l'émergence du Sénégal Thiès léegi nekk na une ville boo xam ne c'est une ville carrefour du point de du du point du du de beaucoup de points yoo xam ne Thiès am na fa tey yow bërki démb jaay boo duggee Thiès tey la l'autoroute Thiès jëm lycée Malick Sy un tronçon boo xam ne plus de sept kilomètres yoo xam ne ni ko le président defaree kenn mësu ko xalaat. nga dem tey à Tivaouane l'axe Tivaouane Meouane l'axe Tivaouane euh, Thiénaba le euh, l'axe AIBD Thiès tout ça le président def ko ci wàllu infrastructure la ré des chemins de fer. avec mais justement pourquoi attendre la fin du mandat euh, pour nous parler de réhabilitation des chemins de fer euh, pour nous parler d'un tronçon boo xam jàpp nañ ne am na retard jëm exécution bi euh, le marché au poisson de Thiès aussi retard bi ci am tey ba affaire waaj a jeex na bëgg accélérer yëf yi envoyer le PM en campagne déguisée à Thiès. déedéet déedéet nee de 2014. a toujours la volonté de l'homme mhm. pour construire pour faire quelque chose mais il a toujours des imprévus et des yoo xam ne mën na am Covid bi jaar na fi ci diggante bi. Ah de 2020 à 2022 pratique dama lay wax rek non du question Covid à mais dama la bëgg a wax ne rek nit ki mën nga am sa yéene. Mhm. mën nga am intention mais mën na bañ a mën na dem bañ a méngoo ak li ngay fekk ci terrain bi. donc y aura toujours des des des goulots d'étranglement yoo xam ne mën elle est également politique. non moi je dis le contraire. Merci. moi je dis Amadou Ba dégg nous allons remporter la présidentielle au premier tour Thiès la Fanden waay tax na waaw tax na doon xam nga. c'est mais loolu loolu c'est xam nga ça <laughs> serait il sort du cadre économique. xam nga ça serait très difficile nous de dissocier l'action politique et l'action euh, économique du gouvernement parce que un premier ministre en tant que chef de gouvernement. boo demee sa casquette politique mën nga ko yóbbaale comme mën nga def di dugal aussi sa casquette. Euh, en tant chef de gouvernement on n'est pas en campagne. on n'a pas dit aux autres on n'est pas on n'est pas en campagne effectivement parce que la loi xam nga loolu lépp loolu lépp loi moo ko wax. Mhm. ñun waxuñu ko y une période de pré-campagne y a une période de campagne.

président mooy dem bu fu mu mën a dem mu dem fa bari ki dem moom mooy teemoon à jas premier ministre à ses côté ci lañ mettre euh, en en relance les la zone économique spécialisée de jas et de Sandiara mm-hmm. tey boo demee à Thiès Thiès est devenu maintenant le premier hub électrique du Sénégal avec des centrales électriques de dernière génération le central de éolien de de Taïba Ndiaye xam nañ ko le central voltaïque de Malicounda fii lañ ci ci ci ci nguuru Macky Sall am. bu ñu toogee ba léegi di mën a def ay émission te xalaatuñu courant bu coupé lu dul dafa cher donc nañ ko sant président Macky Sall jërëjëf jërëjëf.